doomu Sénégal Italie ca bitim réew de mar di Italie ubbil tribune yéene kay nañu lu tollal téeméer ak fukk ak benn ci ay sénégalais de jàngoro ja rey na leen ca bitim réew inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ilaha illallah dama ne la ci Sénégal gi waaw lu tollal juróom fukk ak benn ci ñu bees daal dina leen daaneel juróom-ñeent ñoo xam ne nag maanaam ña nga réanimation mar di Italie la ilaha illallah kenn deewati na démb ba sob li ne ñii dee kay saa yi muy xëye muy gën a yokk ndax da fi mu nekk nii ñu ngi ci ñaar fukk ak juróom benn ñoo xam ne de jàngoroy corona ji rey na leen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dama ne la ku mujj ki jigéen la Samakan la dëkk juróom-ñaar fukki at ak benn la yéeni kaa gi ne ñaari junni ak ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk di deux mille quatre cent quatre-vingts cas yu positif ah ñoo am de dama ne la junni ba ak juróom-ñaari téeméer ak juróom yel de ci Ndakaaru Njaay jël jóob la bokk critique yéene kaa ne jàngoro kay bu doon nag la bu ñuy tong-tong waaw dañ naan Ndakaaru Njaay jël jóob jël na ñaari pooje ca ginnaaw jël ñaari tànk ye ca kanam jël bopp ak gën a mu dee la ñuy xam ni kon dafa corona jàmm gën la dëkk jigéen la yéen kaa gi ne docteur Cheikh Soxna waaw nee boo leen déggee ne jàngoro jàngay wàcc de weer wu dee wii di ñëw la bu yeggee ci fukki fan juróom yo mi juin ca la pic ba di am réew mi quotidien ne en tout cas juróom-ñeenti kaayu garaaw la ilaha illallah ñu ngi tëdd ci hôpital ya sur sa aane kay jaanama la dund nag fi mu nekk ni li jaanama kaayu garaaw yaa ngay gën a yokk lu tolloo junni ak ñeenti téeméer ak xam ni kon ñu ngi leen di faj lu ko jëlee kaa terre la kaa bu njëkk ba Fatick de waaw nekk te waaja daal diggante Fatick ak Ndakaaru Thiès ak Fatick la doon daw ah libération yi nekkaa de gis nga ñooñee nga xam ne nag maanaam dañuy daw kon ci diggante région yi waaw mafia bu garaaw moo am te autorisation de circuler yooyee ah, ah, waaw waaw section de recherche feeñal na leen homme d'affaires bi lée ñu waaw nekk te réseau ba moo leen indien yi te liggéeyee ca usine fer bu jam ñaajow waaw nu ñuy laalee waaw dama ne bi lée transporteur bi dee nangu na ne lu toll ak ñeen fukki junni di deux cent mille la fay ngir am kon kay ba laay laay la ngir mën a dem ak dikk ca région ya box bob li ne dem ak dikk ca région yooyee waaw te ñu koy tere ah ak état d'urgence de couvre-feu bi docteur Moussa Thior nee la ñuy tere yëpp jaru ko barki yonent bi la code corona la waaw kase na ko dee ba Moussa Thior ah nee na covid 19 ji lée nekkul feebar boo xam ne kon wàllaateem daa gaaw laa la loolu wàllaateem gaawul mais lan moo tax ñuy continuer état d'urgence bi lée lan la jariñ lan lay indi ba Moussa Coor yemu ca parce que càmmiñal roxee coor ja de waaw nee na ñëpp ñëpp xam ne tëj bi nga xam ni kon tëj ko nit ñi ñi lee jariñul dara confinement te nii nga xam ne nag maanaam moom la ñuy tamee dëmm ñi nga xam ne kon dañoo am jàngoro ji lee la waral tam nga tu dara lutul bi nga xam ne kon moom la ministère de la santé di ca def dëgg la professeur Amsatou Sow Sidibé ci Dakar Times waaw nee na président Macky Sall waxtaan ba jubóo bi amoon ca commencement ba yëpp Macky Sall la ko yàq mar Amsatou Sow Sidibé ne Macky Sall ci boppam dafa waroon a wane fulla ak fayda biir fermeté daal di communiquer tamit ci lan moo sabab ñu jël dogal yu tar yii Thérèse Sey Diouf day ci laas waaw nee jumtukaay mooy yi ñu war a kon feebar bi lée du dara lu dul topp ndigalu waa kër docteur les gestes barrières enquête yéene kaay ne xeexe jàngoro ji day waaw doom ja vaccin ba koy faje gaa ñaa ngi koy saboté de direct news de njëkkante ngir am doom ju koy faj waa loolu est ce war naa tax ñu ne juróom benn bu fukki ñu ne est-ce que institut Pasteur seen résultat yi nga xam ne kon moom la ñuy génnee ci test yi est-ce que nit ñi war nañ koo gëm looloo jaralaaj looloo jaralaaj yéen kaa ngi ne institut Pasteur waaw mais dañ doon jéem a gonfler kon chiffre yi ca Madagascar waaye gis nañ fi Madagascar mujjee ci Sénégal gii coowal faux positif yo ca hôpital Fann ñañ ne woon dañoo positif ba ci yàgg kon ñu ne dañoo négatif waa kër docteur yooyu nga xam ne ñu ngi liggéey waaw mais looloo jaxase nit ñi nag looloo indi tut bi ci bopp sénégalais Moustapha Diakhaté waaw nee na Sénégal ci boppam moo warul sukkandiku laa lay wax nii ci benn institut Pasteur Pape Diogo Abdoulaye ah nee na yii mais nañ leen ko dénk professeur Souleymane Mbuub nga xam ne problème mu wér yaramu Sénégal gi lée Sénégal lañ koy gérer te ay sénégalais ñoo koy gérer looloy dëgg docteur Cheikh Soxna ci yéene kaay gi waaw nee na Pasteur dañoo lànk ndaari te di ci suuf ne duñu ko opéré ak IRSF bu professeur Souleymane Mbuub laa la wax nee nañ duñ ko jox tous dara lañ ko dul jox duñ ko opéré ak professeur Souleymane Mbuub Samuel Ahmed Sarr ci évidence na Macky Sall de ñetti yee ko ñulu ko def lu defu sa kanal ak dëgg soxla wàllum patriotisme bëgg day l'observateur nee ONG day da ngay yëglu ci wàllum xiif koo xam ne maanaam mi ngi yoot mar di tali waaw alerte kay programme alimentaire mondial FAO UNICEF ñoom ñoom wax nañ Jean Pierre Senghor nee lu tolloo cinq six cent vingt cinq la ilaha boo sàgganee rek añ réer ndékki o doomu a naar yi dana leen xëy leen di yoo la ko tijjee yéene kaay ne ubbi waat tribunal yi dé Souleymane Teliko ak ña mu àndal waaw ña ngay sàkku na ci président tribunal yëpp ñu bàyyi xel wàllu wéruko yaramu ñuy liggéeyee ci tribunal boobu ak ñi kon nañ leen di ate critique yéene kaay ñaari xale yee ñu rey ca Touba waaw autopsie bi dé ne xale yi am na seeni yenn cër yoo xam ni kon dañu may réer allahu akbar sur quotidien acculé dé ma ngay ërtal nag patronat ba di ko acculé acculé ma ngay acculé patronat ba waa sutele day ci évidence moo dox ci diggante Sénélec ak Akilee mar di taal waaw waaw ñoom waa Sutelec yemuñ ca parce que syndicaliste yi nekk Sénélec googee waaw ñu ngi woo sénégalais yi nga xam ne kon dañoo abonné Sénélec woo tam askanu Sénégal gi ñu jóg taxaw xeex ak coup d'état bi nga xam ne mooy waaj a am ca Sénélec Dakar Times ne man kay maa lay nag lan moo tax ba waa CIS club ne dañuy jàppale Akilee benn waa juñ naan Victor Ndiaye associé Akilee sœur préférence nationale préférence kay mi ngi tàmbalee si bëgg sa réew gis lu yàqal sa réew nga xeex ko kay <laughs> tey man coowal Akilee gii ak Senelec bii waa tonton jogay moom xanaa du ca wax wala yëgu ko waaye nag ak lu mu doon scandale scandale scandale scandale du gën a doon scandale pétrole bi mukk moo tax suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy teree rek boo paree mën na la tëjal